bi ñoo ngi toog ak sunu baay euh, baay Dame Diop euh, mi ñu doon waxtaanee démb ba léegi baay Dame tey mu mel ni danga defal teraanga si néegum nday bi ñu fi taxawee ci suba ba léegi ma dégg sunu xarit vraiment di wax ci yow ay wax yu rafet ñu bëgg a xam tey bi nga ñëwee gis sa bokk yi li ñu la defal xale yi wayal la way wow nan la la def. alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi sant yàlla bu baax ci li nga ma laaj alhamdulilah euh, xam ba xam jeex xam say bokk ci gën te nit mën ngaa ëppale say bokk waaye moo leen gën ndox euh, soow mën naa ëpp ci ëppante ci weex ëppante ci bari waaye mënut ëppante ci weex loo mën a am te moo say bokk amoon njëriñ amul njëriñ ba tax na euh, alhamdulilah dañ koy jéem di ko def di ko conseil ñëpp mm-hmm. képp koo xamante ni yàlla may na la dara nga delluwaat ci say bokk def fa dara waaye yàlla dogal maanaam nga war a dem say bokk defuloo fa dara te si nga def moom mënul ñàkk def sa mbokk maa ci jaamu ñi rek nga def sa bokk maa ngi def jaamu allah kulli euh, sama problème mooy dama dégg ñu ni mu Muniru moo defaroon mu njëkkoon defar. Euh, waaw Serigne Muniru boo mu wax. Ah. mooy Alhaji Muniru Diop. Euh, mook sama yaay ñoo bokk ndey ak baay mm. mag mu baax la woon. Eh, ku bëggoon dëkk bi la ku dëkkoon bëggoon njaamur la eh, bëggam gën bëggoon nag dëkk bi sax moom la ko yàlla fayee ndax gis nga dëkk bi léegi bâtiment bi nga toog nii borom nga dëkk Louga eh, bëgg dëkk bi ak mag ñi bëgg dëkk bi moo tax bëgg mu dëkk bi am na kër Louga gu dax gi waaye xam na ne fii mu am mooy cosaanam xam na ne fii lañ koy fekk naw naw ko naw ko xam na it ne fii ci wàllu yàlla li nga ma def mu sel sell mënoo ko def ci taax yu mag si mu sell ndax fii amul musique amul wax def lu bon amul yu bëree bëri amul. kon dëkk bi kenn du fi musique. déedéet musique amu fi. amul tëgg amul amul tëgg amul dara fii yàlla kenn moo fi nekk. alaaj daan jum mën so nan la bokkee ak maam Galaay. maam sama yaay day. setu galaay la direct ndax galaay yu baayam gën a gàtt nooru galaay ko jur mu jeex takk nooru moo jur faat nooru ba jur moom ah. mbokk yi gis ngeen ko noonu la alaaj dam surtout galaay yaayam mooy seen taaw maam galaay yaayam lañ njëkk a gis Fat Nuuru mooy premier sëtu Galaas. Fat Nuuru nuuroo ko jur moom la maam Galaay njëkk am ci ab sët. waaw moom it maam Nuuru. mi jur faati nuuru moom la njëkk a am cib sët man daal taaw mooy taaw sëtu maamam moom mooy taaw sëtu maamam ok est-ce que waaw mais nag dam jëmmal so bu ñu taxaw sa tur wi taqaloog Seydi Mouhamadou Mansour borom daara yi ñu juge Tiwaawan loolu yàlla dogal la ñu juge Tiwaawan ñëw ba fi jàkkaarloo yow te laaju ñu la loolu lu ko indi waaw ma ne loolu yàlla dogal la du lu ma def du loo def yow moomu du keneen ku ma wax ba mën def def def def sëñ Mansour sama sama mooy sama sëriñ doot sama xarit ñu àndoon man ak moom ci lu bari yàlla doon mën ko ba tabaxal benn troisième étage ca golf ba ma ko tabaxal troisième étage ca golf ñu di ko dimanche ci guddi trois heures de matin mu jóge Tiwaawan ñëw ñu kuule ba pare ba yegg kuule ba yeggal mu ne ba ñu wàccee mu ne alaaji daa ma ne ko maa ngi nii mu ma la béykat mu ne eh, waa daal bi ñuy doon kuule wàcc leen ñu wàcc mu trois heures dix mu yéen waa Géejawaay yéen waa golf maa ngi leen di ñaan képp ku tudd ci sëñ ma su ma tuddee ci man Mansour na ci boole alaaji daam ñu ne kon alaaji daam na Mansour mu ne alaaji daam Diop loolu ko waral. looloo taqali sa tur ak turu kon diggante maam Galaay parce que dégg naa maam Galaay moom magoon Seydil Hadj Malick. waaw mais am na doomam jum yabaloon ci Seydil Hadj Malick. waaw kon kooku moo relation entre waa kër maam Galaay ak waa kër Seydil Hadj Malick. waaw waaw loolu moo moo ko créé ndax mag ñi eh, xam nga àdduna kenn mënut a xëy xëy yàgg ci yàlla. Mm-hmm. yàlla ceen la ceen googu. nag la nit di lonkale di ko lonkale ba di seen diw gi di mi ngi ci diw ba diw ci diw ba ci diw ba ci galaay mag mu baax la woon ku dem ci yaat doomam di ñu xaat nag mooy ki nga xam ne moo gëm la lonkale woon ak Seydi Malick doomam ju wax aadi itam moom itam moo tonqole woon alaaji mujib ak sëñ Babacar Si loolu demee maam Galaay moo jël fasu naaru góor jox ko doomam juñ naan sëriñ aadi ne ko yóbbul ma ko muy sama ziyaar ci Seydi Hadji Malick si Seydi Hadji Malick si ba sëñ aadi demee mu defal ko ijaaza itlaax ne ko fas wi fonk naa ko lool waaye def naa ci li ma ciy def soo demee nga joxal ma ko sa bàyyi galaay sëñ aadi fas woowu nekk seen diggante nee bi ma koy indiwaat ngejji waruma ko da koo jiital ba egsi moom sëñ waa ji nag waa ji ñuy wax aadi yabal taawam buñ naan alaaju mujib ci sëñ Babacar ne day fay borba ko bàyyam defaloon ci Cheikh Hadji Malick mm-hmm. mu dem sëñ baabakër mu defal ko ijaaza ak moo tax keroog bi sam papa faatoo alaaju mujib sam papa sëñ defal na ko fii ijaaza ak itlaq ci kër Mor Mbay gi Louga hôpital daan na fa ñëw di fa gane moo tax sa papa bi mu faatoo ma dem di ko jaale ci sëñ Mansour ci kanamu alaaj daam mi mu ne ma ginnaaw ijaaza gi la sa baay jox maa lay njëkk a jox ijaaza itlaaf alaaj daam mi mi ngi toog loolu mooy li ñu lënkale ak ñoom ma ne ko xam ne la kenn ku nekk bu mu gën a yóbbu ca ci nit yàlla ka mm-hmm. nit yàlla seen la ak kan nga la ci yóbbu nag ku mën a doon. ak fa ko yàlla jaarale. ak ci moom. Euh, Baye daa maa ngi lay jaar bu baax dama dégg nag ci ci gàmmu gi le xalif général di Tijaan Serigne Babacar Sy Mouhamadul Mansour di lim juróomi nit yi mu am confiance boole la ci loolu lan la la def. fas naa yéene day da a yokk waaye du ko wàññi bu dee ngor danaa ko téye bu dee taraxe danaa ko téye bu dee jox sama àll danaa ko té bu dee jàpp sama bopp ci wax li ma li nga xam ne moom lay bañ dinaa ko téye wasalaam. mbokk gis ngeen ko bay Dame Diop ci biiri bokkam dégg ko ay bokkam ngi noonu wasalaamaaleykum.